ñëw yéen murit yéen nuy si leen taala wa barakaatuhu ci ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jaar ci dëkk bu tedd bi nga xamante ne bii moom la Cheikhuna Ahmadul Xadim njëkk am ab dëkk ci kaw suuf ñëw ci kër rakkam ju tedd jii nga xam ne moo njëkk a jaayanteeg moom ci moom sëriñ Touba Xadim Rasul ñëw ci dëkk bi nga xam ne bi Serigne Touba Khadim Rasoul liggéeyalee lislaam ba lislaam am ndam ci dëkk bi la wàccaat dëkk boobu moo di Daaru Salaam ndigal li nag ñëw ci Serigne Abo Mouhamed Mbacke xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér. jaar ci buntu kër borom gaawaan yi nag la ko tàmbalee ci kër Alhaji Serigne Takko Mbacke ca Serigne Mbacke ante ne ca bopp ba jaar ci kër Serigne Ibrahima Mbacke Ndar Serigne Sidi Gaawaan nekk ca bopp ba jaar ci kër Alhaaji Daam Serigne Xaadim ne ca bopp ba jaar ci kër Serigne Cheikh Coro Serigne Sidi Mbacke ne ca bopp ba jaar ci kër Serigne Sam Serigne Daam mbakke ne ca bopp ba jaar ci kër Serigne Ibra Astu Caam Serigne Mbacke Anta ne ca bopp ba jaar ci kër Serigne Moustapha Caytu Serigne Modou Mamoun Mbacke ne ca bopp ba jaar ci kër Serigne Abdou Góora Serigne Moustapha mbakke ne ca bopp ba jaar ci buntu kër yi nag njabootu maam Cheikh Anta bu jigéen gi la ko tàmbalee ca soxna Faati Mbacke Cheikh Marib taawam ba ñëw ci soxna Sooda Mbacke bis bi nga xam ne ci la Serigne Touba Xaadim Rasul liggéeyaloon borom ñibbi si waat Daaru Salaam waxoon na nag ijhal rujuhi ila xawmi saadatana wal takfina yawma jamhil xalqi nirana bis bi nga xam ne moo far suñuy bàkkaar tabal ñu àjjana bis boobu la ñuy waajal mu war a nekk le 19 juin incha allahu rabbi ñu teew fii nag teewe ko ci kanam Serigne Abo Mouhamed mu woo njaboot gi yëpp ñu maase teew fi fas yéene woote bis boobu ci ndigalu Serigne Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha moo tax danañ yëkkati kàddu gi jox ko Serigne Mame Balla Gueye mi nga xam ne mooy wax ci turu yi alxuraan yi ci njiitul Serigne Ndiaga Sylla mi nga xam ne mooy jiite mboolem njàngum alxuraan mi mu ànd ko ak ñim ko àndal su noppee danañ jox kàddu gi Serigne Asmor Dia moom alaaji Serigne Dia mu wax ci turu sëñ Abdou Khadir Dia mi fi wuutu mbooleem seex si nga xam ne ñoo aju ci kër gi yëpp su noppee danañ jox Serigne saam moom Serigne Guédé mu wax ci turu Serigne Moustapha Mbacke moom sëñ Abdoul Akram mi wax ci turu bokk yëpp nag ànd ak njabootu kër Serigne Afé su noppee danañ jox Serigne Cheikh Anta Samb mi wax ci turu comité d'organisation bi bu noppee Serigne Cheikh Anta Mbacke dana yëkkati ay kaddu ci turu Serigne Abo Mohamed ak mbooleem njabootu maam Cheikh Anta gépp xam naa ni ko sëñ Fallou waxee léegi rek ñu bàyyiloo xel daara yi nga xam ni ñoom la sëñ bi woowoon daaw ci màggal daaru salaam gi te ñëwoon ñëwin woo xam ni kawe na njortu sëñ bi lool muy ñaan nag daar yooyu yëpp ñëwaat ki njàng maag taxawaay bu am solo boobu di jiital daara yi njaareem wagga sëñ Mor Mbaye si Abdou Lahad Cissé ak ñi mu àndal ñëpp sëriñ Bass Dieng ak mbooleem ñu aju ci wagga sëñ Malick Dieng bàyyiwul kenn moo leen woo ci bis bi waaye day woo waa ndindi ki sëñ Maodo ba ñoo ngi bàyyiloo xel baax a baax bis bi taxawaay bi rafet na lool sëñ Baara Touré waa Madina Touré ak daara yi Madina yëpp kazalika ñoom itam sëñ di woo di leen bàyyi loo xel baax a baax bis bi mi nga xam ne daaw kawe nañ jot lool ba sëñ bi cantam ak mbégam kenn ku ne xamoon na ko daaw ci daara yi waaye di woo waa Touba sëñ El nga xam moo jiite woon waa daara Kamil Touba ak mbooleem daara ju aju Touba ànd ko mu ngi woo waa daara Touba yi yëpp daaw ba ñu yokkaat ko baax a baax ba sëñ bi amoon ci mbégte daaw mu amaat leneen loo xam ne mooy gën a kawe luñ daaw la mu ngi koy bàyyi loo ñëpp waaye daal yi Daaru Salaam yi kasalikat bàyyut kenn boo gisee daara Alaaji Ibrahima Dia sëñ Asmoor gi daara yi ñoom tam bari nañ lool sëñ bi nga woo daara yëpp kenn ku nekk na nga woon daaw nga ànd ak sa jëwriñ yoo xam day ma taxaw xale yi ni ñu defewoon daaw taxawin woo xam ni day gën a kayiwaat bu daaw ba sëñ boo ngi bàyyiloo xel bis baax a baax waa daara yi xam na ni bis bi alxuraan moo ci jiit te moom la gën a bàyyi xel ci bis bi ak bernde yi kon waa daara yi ni taxawoon daaw sëñ baa ngi sakkuwaat ñu gën a taxawaat taxawin woo xam ni mooy gën a kawe gën a ñettate boo xoolee lu daaw la ñu ngi bàyyi loo xel baax a baax waaye boo ñëwee ci waa jëmmi rabita bi sëñ Xaadi Jaxate mi nga xam ni moo ko doon woon daaw rabita bi ñëpp teewit sëñ bi nga koy bàyyi loo xel baax a baax te loolu mat naa ay junni daal teg yooyu moo ngi koy bàyyi loo xel ak yeneen dëkk yi nga xam ni ñi ñuy wax ñooy jëwriñ ñi dinañ yóbbaale yeneen daara yi nga xam ni ñu nekk ci ron yooyu ko sëñ Ibou Mouhamad moo ngi bàyyi loo xel baax a baax njàngum kaamil Daaru nañ ko taxee woon daaw taxin woo xam ni daara yi waa waa Sëñ Malick Bari Si ñoo ngi koy bàyyi loo xel si Cheikh Ibrahima si ñoom itam gis ngeen daaw ñoom itam ni ñu taxee woon daaw sëñ bi bëggoon ñoom lool mu ngi leen di bàyyi loo xewaat bis bi ñu gën a bàyyiwaat xel baax a baax njàng alxuraan mi te ñaan yàlla ñu àgg ci bismillahi rahmaani rahim génne ci alhamdulilahi rabbil alamin sëñ Ibou la amoon daaw ci mbégte ñu amaat lu kawe loolu ci dagge sëñ Tuubaa sëñ Abdou wax ci turu Cheikh si ci ndigal sëñ bi mu am ngant jox mu ndigal ñu wuuti ko fii moo yëkkati nuyoo islam bi gën a tedd ak ziyaara yi gën a yell di ko toj ci loxol sëriñ bi ak Cheikh eh, Abou Mouhamad ak mboolem kilifa diine yi fi nekk yëpp ak sëriñ si di leen ziyaar di ñaan yàlla suñu borom yàggal leen fi suñu kanam tam may leen wér ba liggéey bi nga xam ne sëñ bi yéene na ko liggéeyal maam ju tedd ja ànd koog jëwriñam yi ak doom yi ak taalibe yi sama borom dafa ko tawfiq ba mu def ci lu kawe njort nga xam ne nag moom la ñuy dëgmal mooy bisab magal Daaru Salaam gii ñuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala may nu ñu àgg ci ak jàmm te ba dafa doon xam ne moom ni ko sëñ bëgg mu def ko lu kawe njort kàddu yi nag kaddi soññee la ak woote mbooleem seex yi nga xam ne ñi ngi aju ci kër borom gaawaan tàmbale ko ci kër sëñ Mor Faat Touré Madina mboolem ñi ci aju ñëpp ak kër alhaaji Ibrahima Dia ak mboolem ñi ci aju ñëpp ak kër alhaaji sëñ Mor Ndiaye Diop ak kër sëñ Masila Ndaak ak mboolem seex yi fu ci waay mën a nekk rek ci kër borom gaawaan ñëpp ñu ngi lay soññ di la woo di nga ngay yaatal woote bi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñu àgg ci ak jàmm te ni ko suñ bi bëggee yàlla ko ci tawfiq am na ko ñu kawee njort. kàddu yi ñuy jël ñu ngi koy jël ci turu sëriñ Moustapha moom si Abdou Lakaram moom mi nga xam ne moo ko waroon a jël taam ngànt tax ñu ne ma naa jottali kàddu yooyu ci turam kon euh, ci turu sëriñ bi ñu ngi woo mboole mbokk yi ci màggalu Daaru Salaam gi. daaru salaam nag boo nee boroom gaawaan sa sam xel lay njëkk dem ci sëriñ Afia kon ñi ngi woo waa kër sëriñ Afia ah, ci njiitul xalifaam sëriñ Saalihu ak itam ah, sëriñ Abdul Baaxi di woo mboolem njabootuk ma maam maaram gi bàyyiwuñ kenn di woo njabootuk sëñ Mbàkke Moor Anta Sali gi ñëpp bàyyiwuñu kenn ñi ngi woo itam njabootuk sëriñ Bousso bi gépp ak njabootuk saabu si gi bàyyiwuñu kenn di woo mboolem buntu kër diine yi ci réew mi yëpp bàyyiwuñ kenn kër euh, maam El Hadj Malick Sy euh, kër euh, Serigne Canaba kër maam Limaamullah ñu ngi woo ñëpp di woo woo kër Cheikhul Islam Serigne El Hadj Ibrahima ñas di woo kër maam Khalifa di woo itam kër maam Boukounta Ndiass ca Ndiassane di woo itam suñu mbokki xaadir yi nga xamante ne bii. ñoom lañu àndaloon démb jëkk Cheikhuna Ahmadou Khadim sëriñ bi daal mi ngi woo mbooleem ñi nga xamante ni bii ñoo bokk lislaam ji ak fu ñu mën a nekk ak nuñ ca mën a nekkee nee na mi ngi woo ñëpp ci bis bi nga xamante ne bii mooy bisi Cheikhuna Ahmadou Khadim jógee ci liggéey ba mu liggéeyaloon lislaam ni ko sëñ lu waxee léegi mu nekk liggéey boo xamante ne bii ca la lislaam amee lépp lu mu am fii ci Daaru Salaam mu ne woon ci weeru janvier ci 1903 nee na mi ngi ci woo mbokk yëpp mbég mi nga xamante ne bii daal mooy mbégum lislaam ñëpp bagg na ñëpp ñëw ànd ko ak moom ci tàmbali ba ba ci mujj ga kenn bañ a des kon ñi ngi woowaat ñëpp di ci dóor sëriñ Abou Mouhamad mi nga xamante ne bii muy xel Cheikh Maodo Mamoun bu kenn des fooy mën nekk rek ñu ngi lay woo mu ñëw ànd ak ñun. asalaamaaleykum wa rahmatullah ci ndigalul sëriñ Abou Mouhamad xalifab Cheikh Mouhamadul Mamoun ak njabootu borom gaawaan gépp ñu ngi soññe ci organisation bi nga xam ni at mu nekk. ñii seq kër gi ak taalibe yi ñoo koy àndandoo ngir benn bis bii rek ñu am di yëgle ni le 10 incha allah la ñuy daje fii ci Daaru Salaam ngir mbale mi set setal bi ñu ngi ci woo ñëpp di mbale mi le 10 le 12 incha allah am nañ plateau bu mag fii ci kër gu mag gi ay boroomi xam-xam di ko seq ñi nga xam ne ñoo seq organisation bi waxtaane ko ay boroomi xam-xam di ko def télé yi bari dinañ ko def en direct ak yu bari waaye le 15 nag mooy tàmbali njàngum alxuraan mi nga xam ne nag bokk na li ci gën a ñor sëriñ bi ci màggal gi njàngum alxuraan mi dégg ngeen ni ko sëñ Balla soññee sëñ baa ngi soññewaat mbooleem daara yëpp le 19 nag incha allah duñ jàngee ñeenti fan ba ci juróomeel ba mooy doon bisu màggal gi lépp di yem ca bis ba ñu teg ko ca na ko borom gaawaan daan defee ak Cheikh Mahamadul Mamoun ànd na ko rakkam ya ak sëtam ya ak njaboot gi kon sëriñ baa ngi soññ nag daayira yi nekk ci réew mi ak ci bitim réew mbooleem fu daayira borom gaawaan nekk wala ku aju ci kër borom gaawaan wala seexu borom gaawaan ci réew mi wala ci bitim réew sëriñ baa ngi lay soññ nga gën a fonk bis bi te teg lépp ci sunna sëriñ Abo Mouhamed ànd doog jabootu borom gaawaan gépp di woote bis bi le 19 juin incha allah fii ci Daaru Salaam na fi ñëpp teew. ci turu Serigne Touba Serigne Touba. ci na fi yàgg lool te ci turu sëriñ Abou Mouhamed. xalifa Cheikh Mouhamadul Mamoun. na fi yàgg lool ci turu njabootu borom gaawaan. ak ci turu njabootu borom gaawaan gépp. la ko dalee ci njabootu Cheikh Mouhamadul Mamoun. sëriñ Abdou ci jigéen ba ci njabootuk boroom gaawaan gu jigéen ji ndax bis bi. ndax bis bi. Serigne Abo Mouhamed di woote. sëriñ Abo Mouhamed di woote. dafa rëy lool. dafa rëy lool. te bari njariñ lool. te bari njariñ lool. njariñ li mu yéene ci ñëpp. te njariñ li Serigne Abo da cee yéene ñëpp. moo tax mu ni nañ ko yëgal ñëpp. moo tax mu ni nañ ko yëgal ñëpp. nañu tàmbalee ci kilifa yi diine yi. bu ñu bàyyi kenn. xamal leen xamal leen ni. danañ fi jàng ci alquran. danañ fi jàng ci alquran. ne. loo xam ni. bariwul dëkk buñ koy jàng. bariwul dëkk buñ koy jàng. wala bu baree dëkk buñ koy jàngit. wala bu baree dëkk buñ koy jàngit. du dëkk bu mel ni Daaru Salaam. du dëkk bu mel ni Daaru Salaam. nga xam ni moom la Serigne Touba njëkk a sanc. nga xam ni moom la Serigne Touba njëkk a sanc. kenn ku ne xam ne kenn ku ne xam na ni sëriñ Touba. fu mu mës a fanaan. fu mu fanaan. def na fa jàkka. def na fa jàkka. bu fa amee ñaari fan ñett. bu fa ñaari fan ñett. def na fa jumaa. def na fa jumaa. kon Daaru Salaam gii. kon Daaru Salaam gii. njëkk amee jàkka. la Serigne njëkk amee jàkka. fi jumaa. fi la ko njabootam gi feeñoo. fii la ko njabootam gi feeñoo. di Cheikh Mouhamadul Moustapha. di Cheikh Mouhamadul Moustapha. di Serigne Fallilou Mbacké. di kon nag suuf si. kon nag suuf si ci Daaru Salaam. lu fi waay ñaan. lu fi waay ñaan. da nga ko am. da nga ko am. te ñu bari. te it xam nañ ci dara. xam nañ ci dara. kon nag sëriñ baa ngi kon nag sëriñ baa ngi soññ diwoo woo mbooleem taalibe yëpp. mboolem woo bokk yi. di woo mbooleem bokk yi. ni ko sëriñ Sam waxe léegi. ni ko sëriñ Sam waxe léegi. bis bi. ndax bis bi. ñoom ñëpp a ko bokk. ñu nag ñëpp a bokk. ñi bokk ci maam. ñi bokk ci maam Maharam. ak ñi bokkul ci maam Maharam. ak ñi bokkul ci maam Maharam. waaye ñu bokk ak ñoom. waaye ñu bokk ak ñoom. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi. Sayyiduna Muhammad sallallahu wa sallam. ndax bis bi. ndax bis bi. jàmbaar ji jàmbaar ji ci doon xeex. Seydina Muhammad. Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. moo ko taxoon di xeex. moo ko taxoon di xeex. lam doon xeexit. lam doon xeexit. mooy la saxaaba yi doon xeex. mooy la saxaaba yi doon xeex. saxaabatu rasul. saxaabatu rasul. saxaaba yi àndoon ak yonent bi. saxaaba yi àndoon ak yonent bi. lañ doon xeex. lañ doon xeex. taxawal lislaam. taxawal lislaam. ak saxal lislaam. ak saxal lislaam. dàq kéefër. ak dàq kéefër. loolu rek a taxoon Serigne Touba jóg. loolu rek a taxoon Serigne Touba jóg. ba coono biñ ko sonal bépp. ba coono biñ ko sonal bépp. sonal ko ñu sonal ko ko. lu ñuy nattoo nit rek. lu ñuy nattoo nit rek. nattu nañ ko. nattu nañ ko ko. ba keroog bi mu ñëwee Daaru Salaam gii. ba keroog bi mu ñëwee Daaru Salaam mooy bis bi mu njëkk am ci àdduna. mooy bis àddina. mbég mbég. moo xam ni. ak njabootam wër nañ ko. ak njabootam wër nañ ko. ay taalibeem wër ko. ay taalibeem wër ko. ay xaritam wër ko. ay xaritam wër ko. mu wóor ko ne. mu wóor ko ni. dëkk bi mu njëkk a sanc. dëkk bi mu njëkk sanc. liggéey na ba sonn. liggéey na ba sonn. juróom-ñetti at manqué tuuti. juróom-ñetti at yu tuuti. ñëw andi fi sërite bu bëree bëree. ñëw andi fi sërite boo xam ni. sërite boo xam ni. du jeex. du jeex. du jeex mukk. feeg ñu dem àjjana. feeg ñuy dem àjjana. kon nag kon nag. képp koo xam ne. képp koo xam ne. ndam li sallallahu alayhi wa amoon. ndam li sallallahu alayhi wa sallam amoon. cawa waa Makka. ca Makka. ak ca yéefar ya. neex na la neex na la. ndam li Serigne tubaa am. ndam li Serigne Touba ci colonialiste yii. ci colonialiste neex na la neex na la. Serigne baa ngi lay woo ci bis. bi. te ñi ngi la ciy woo. sëriñ bi nee na te ñi ngi la ci woo. bëgg nga jariñu ci. bëgg nga jariñu ci. ndax bisum njariñ la. ndax bisum njariñ la. ku fi ne ku fi ñëw. loo ñaan. loo ñaan. suñ borom dana la ko defal suñ borom dana la ko defal. wasalaamaaleykum. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. mu wax na nag bis bii nga xam ne moom la wax na lu fi waay ñaan boo delloo dong ko am. moom la Cheikh Moussa Ka wax ne maam Cheikh Anta moo wax ne bis bi la laay woote fii Daaru Salaam fi ñëw suy delloo am xayra maraam yaakaar naa ne nit ñi bëgg lépp nag mi ngi amee ci bis bi Serigne Touba amee ndam dëkk ci dëkk bi nga xamante ne bii moom la njëkk a am ci kaw suuf fekk fi yàkkam ji nga xam ne moo njëkk a jaayanteeg moom fekk fi ki nga xamante ne bii fi la Serigne Cheikh Ibrahima Fall amee ngërëmul yàlla di Daaru bis baa ngi noonu le 19 juin lay doon Serigne bi nag di soññi mbooleem daayire yi nekk bitim réew foo ab daayire mën a ne nañu xam ne bis noonu bisub maam Cheikh Anta la bis bépp bis bi képp la am ci Serigne Touba moom la maam Cheikh Anta digaloon nag taawam ba Cheikh Mahamadul Mamoun Mbacké na ko bis bi Serigne Touba liggéey woon yenn ku fii ci Daaru Salaam dee ko woote lu ma am danaa la ko ci jàppale Cheikh Mahamadul Mamoun woote ko yónnee ci Serigne Birahim Mbaye na ko damaa bëgg ñu yëpp daje Daaru Salaam 1939 na leen ñu daje Daaru Salaam ànd ak maam Cheikh Anta fàttali ko bisub Serigne Touba boobee joxoon ndigal Serigne Mbacké Bousso mu jàng juróom-ñaar fukki kaamil ak juróom yi Serigne Touba jàng euh, amoon ñu jàng téeméeri kaamil ren ji ñu jàng ñeenti junniy kaamil yu tegal ci teewaayu sëriñ Abo Mohamed yàlla na fi yàgg lool ànd ko wér bis ngi noonu ci ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa noo ngi ñaan ku teew Daaru Salaam la 19 yàlla na yàlla far say bàkkaar ca sotti la ay xéwal ti saare mbooleem yiw àdduna ak alaaxira ci mbooleem njabootu lislaam gépp wasalaamu aleykum wa wa barakaatu waareew sargali leen alaaji Seex Anta yor nay mboot yu rëy maraba yaa seyxu anta yow de mbaate jàmm nga am